sampo foofu ci jam ñaajo moom ëttu yéenekaay bi ci boobu la service rek la daal di ñëwandi waaye tamit daal di addu euh, ngir lu gën a ñoŋal waaye gën a suqali tamit jëm ci prix yi nga xamante ne si waxtu wi tembe rek dafa daal di euh, moo di sénégalais yi moom ëttu yéenekaay bi di alerte quotidien euh, di xëy rek di addu ci marché boobu di mën a permettre lii di ministre de commerce ngir rek mu daal di réguliser prix yi nga xamante ne si rek waxtu wi commerçant yi léeg-léeg rek dañu ci daal di def namu mu leen daal di neexee moom ëttu yéenekaay bi di alerte quotidien moom moo daal di xamle nu ñu mel ba tey dañuy daal di des rek ci wàllum dund ak yokkute gi nga xamante ni rek moom moo ci daal di am rek ca mbir ma la mu daal di gis rek moom moo di léeg-léeg prix ak fa mu di egg yenn ci ay commerçant ñoom ñoo ko fay daal di yóbbu ginnaaw bi jëndee ci ay stock rek di ko daal di téye ba tax na yenn ci ay produits di manqué moom premier premier ministre bi wala moom ministre de la commerce daal dinay àddu rek ci mbir ma waaye daal dinay xam ni it eh, dinañ daal di wàcc bu baax a baax ci terrain bi ngir jëm contrôler prix yooyu eh, ba yokkute yi nga xamante ne si léeg-léeg dañ ko ci daal di teg te mu bu baax a baax di ay yi nga xamante ni moom Assome Diatta moom moo ko daal di yëkkati eh, ci ëttu yéenekaay ba tey ak yéen ci beneen ëttu bi moom nag dafa daal di àddu rek ak Air Sénégal bi nga xamante di amee ay jafe-jafe ba tax na sax loolee daal di koy jural mënul naaw ci kaw ginnaaw rek euh, bi mu daal di amee benn appareil boo xamante ni dafa daal di laal ci suuf ci jamono ji nga xamante ni dafa doon jóg moom ëttu yéenekaay bi euh, di bis bi loolee sax dafa daal di jur rek mu daal di mbëkk benn camion foofu rek euh, ca Barcelone ba tax na mu daal di indi fa ay jéey jéey ba tax na ëttu yéenekaay di xam ne rek di lu toll rek ci ñaari avion rek daal di nañ leen fay dédommagé benn ca Paris ak benn ca Ndakaaru moom ëttu yéenekaay bi di bis bi di caatu yéenekaay yi moom moo daal di àddoo nu ñu mel ba tey ñu ànd ak yéen ci beneen ëttu yéenekaay euh, di tribune moom dafa daal di xëy rek tey daal di àddu jëm ci wàllum politique euh, jamono ji dafa daal di gis rek ne ak réero dafa daal di dox rek ci diggante li nga xamante ni si moom moo di intercoalition wàllu yeewi moom dafa daal di jàpp rek ni waxtu wi rek euh, seen diggante bu doon ab sëy la toll na ci ñaan baat ginnaaw ay jafe yi nga xamante ni si moom la ñuy dund jëm ci quatorzième législature moom ëttu yéenekaay wi di tribune ni jamono ji tey euh, groupe parlementaire yi dafa daal di takkarnaase mi ngi mel ni tulleeg màlle ci géewu politique bi moo xam ci opposition wala ci pouvoir moom ëtt yéenekaay bi di Tribune li ñu euh, na euh, si rek moom moo di sa yu bari moom ëtt yéenekaay bi di Tribune moom moo ko daal di xamle waaye la mu ca daal di yokk rek moom moo di groupe groupe parlementaire yooyu ñoom intercoalition wàllu Yewwi dañoo daal di war askanu Sénégal <laughs> ginnaaw ba ñu diggee rek ne euh, dinañ daal di wàññi rek dépasse yu takku yi nga xamante ne si léeg-léeg yenn ci ay député dañu koy daal di gàccoo moom ëttu yéenekaay bi di tribune moom moo daal di àddu lu ñu mel dafay mel ni sax dafa daal di gis ni wax jooju dafa daal di wuute lool ak jamono ji tembe li nga xamante ne si rek moom moo di intercoalition wàllu Yewwi moom rek lay daal di jëfee waaye daal dinay àddu tamit ci article 20 di règlement intérieur bu assemblée nationale ndax dafa daal di jàpp rek ne article boobu dañu ko daal di salfaañe maanaam ñàkk topp la nga xamante ni si loolu la ca yoon daal di digle eh, ba tey ñu des rek ci géewu politique bi ci beneen ëttu yéenekaay di la témoin moom dafa daal di xëy rek ne eh, tong-tong kay moom moo daal di am ca palais ba wala rek fële ci assemblée nationale ab tong-tong la ñu fa daal di soppandiku eh, la mu fa gis rek moom moo di seeraas ga ñu doon rayee ay nag ak ko daal di mujj soppi rek yóbbu ko rek ci fële nga xamante ni si rek moom moo di ci assemblée nationale ginnaaw xëccoo xamante ne si daal dinay tàmbali xaat-xaat euh, ci intercoalition wàllu yeewi ndax jamono ji tembe rek ni ki waxtaan wi ñu doon amal ni ki démb ak déggoo da caa daal di ñàkk am ginnaaw bi Ahmed Aidara daal di lànk rek ne du bàyyi post boobu nga xamante ne si dafa daal di taxaw ngir jiiti ko foofu ci assemblée national mu mel ni loolee sax moom ay dara dafa daal di gis rek ni waxtu wi tembe amul ku ko gën a yey ngir rek mu daal di gañe euh, boobule post waaye tamit am na lu toll ci ay député lu mat ñeent ñoo xamante ne si daal dinañu koy waatal euh, ne ko ko bis bu ñu daal di eggee ca vote rek dinañ ko daal di votel nee na nag loolee moom du ko daal bàyyi benn yoon ba tax na sax ëttu yéenekaay bi di xamle rek ne euh, ñàkk déggoo ci sax dafa daal di tax euh, ñu daal di ajandi waxtaan wi ñu doon amal niki démb ba suba ci ajuma ji ngir rek ak gindiku mën a am ci seen biir moom ëttu yéenekaay bi di la témoin moom moo daal di àddoo lu ñu mel waaye tamit daal dinay àddu ci opposition bi ñoom itamit daal dinañuy teg wala pouvoir euh, daal dinañuy teg rek ñoom it seeni groupe bi parlementaire moom ëttu yéenekaay bi di la Témoin moom moo ko daal di xam ne ba tey ñu des rek eh, ci wàllum politique ak assemblée nationale ak coow ya fa daal di am ci beneen ëttu yéenekaay di grand place moom tey rek eh, dafa daal di xëyee rek kaddu ki nga xamante ni moom moo di Thierno Bocoum ci ëttu yéenekaay bi mi ngi eh, jëm ci quatorzième législative ak coow yi nga xamante ne si daal di nay commencé xaat-xaat ci intercoalition wàllu Yewwi moom Thierno Bocoum ca la mu daal di àddu rek ba tax na mu koy xelal waa intercoalition wàllu Yewwi moom moo di ñu xool ndaka la ñuy liggéeyee rek ba daal di mën a benn njiitu foofu rek ci assemblée nationale ndax loolee rek la daal di jàpp ni moom mooy li gën ci ñoom waaye tamit la ñu waxante woon ak askan wi ni dinañ daal di wàññi ay charge jëm rek eh, ci assemblée nationale mbir moomu dina daal di mën a am suñu wàññee rek groupe parlementaire yi nga xamante ni bëgg nañ ko daal di teg di ay kàddu Thierno Bocoum waaye tamit daal nay àddu rek ba tey rek di xamle rek ne waxtu wii rek lu jëm ci ay charge war nañ ko daal di wàññi bu baax a baax waaye waruñoo teg lenn loo xamante ne si daf koy daal di yokk ak xëccoo yi nga xamante ne si moom moo ci daal di am moom Thierno Bocoum dafa daal di àddune eh, mbir mi kat neexut bañ ndax mbaquus dafay mel ni dafa daal di am ca yëf ya ndax képp koo xamante ne si da nga daal di am lu mat eh, ñetti groupe parlementaire lu mu ndaw ndaw dinañ la daal di jox fond de session bu toll ci ñaari million eh, jàpp rek juróomi million waaye yemul foofu ndax ka nga xamante ne si rek moom moo daal di jiite groupe parlementaire ba moom it lu mu ndaw ndaw rek dinañ ko daal di jox lu tollu rekk ci ñaari million ci weer wu nekk maanaam rek dañuy daal di tripler li nga xamante ni si rek moom moo di salaire député simple waaye moom ëttu yéenekaay bi yemul foofu ndax ku nekk euh, njiitul groupe parlementaire di nga daal di am lu toll rek ci 1000 litres carburant ak ñaari otoy 4x4 ak yeneen avantage yoo xamante ne si daf ca daal di tege moom ëttu yéenekaay bi di grand place moom moo daal di aju lu ñu mel ba tey ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay di le vrai journal moom le vrai journal dafa daal di xëyandi rek des ci jaxasoo bi nga xamante ne si waxtu wi daf ko daal di nemmeeku euh, ci intercoalition wàllu ak yeewi moom ëttu yéenekaay bi di xam ne rek ne euh, seenu ànd kay bu daal di continuer rek loolee yàlla da ciy daal di jàpp dëgg rek waaye waxtu wi ak li ñu nekkee euh, la muy daal di xeeñ rek moom moo di ak féewaloo maanaam tas tasar ci diggante intercoalition wàllu yeewi ndax la ko daal di waral rek euh, di président njiital Pastef Ousmane Sonko moom lu jëm ci ay kimil fonction daf ko daal di mas a xeex ci réew mi ndax nee na loolee jékkul jaaduwul ay nit nekk ci réew mi ñuy jël benn ñaari post ba ñetti poste di ko dénk kenn moom Ousmane Sonko loolee daf koy daal di xeex te waxtu wi tembe rek kii di maire bu Dakar di Barthélémy Dias euh, ca tànk yooyu la daal di aw ginnaaw bu mu nekkee maire bu Dakar ni waxtu wi beneen poste daal di nay gàlluwaat ci am ndoggam euh, moom moo di rek député ga mu daal di nekk ci assemblée nationale waaye niki noonu tamit Ahmed Aydara ci même yoon la daal di nekk ndax la kii di Barthélémy Dias di taxawee rek moom Ahmed Aydara noonee la daal di taxawee nekk maire waaye nekk maire euh, loolee tamit la ëttu yéenekaay bi di le vrai journal ni bu daal di continuer a daal di àddoo nu ñu mel ñu des ba tey ci beneen ëttu yéenekaay di l'observateur moom itamit dafa daal di taxaw euh, def ab jàngat ak taxaw seetlu jëm ci intercoalition Wallu Yewwi ak jamono ji rek euh, coow li nga xamante ne si moom moo daal di nekk ci seen biir moom ëttu yéenekaay bi dafa daal di jàpp rek ne euh, ci xëccoo rek la dal di nekk ginnaaw maître Abdoulaye Wade bi mu tànnee rek Lamine Thiam ngir rek mu daal di jiite foofu ci assemblée nationale mu mel ni loolee Ahmed Aïdara dafa daal di lànk ba kandaare ni moom it di bàyyi ndax la bët bëgg moom la daal di bëgg waaye tamit rek Barthélémy Dias moom it ca wet ga ak coow lu jëm rek ci cumul de fonction yi nga xamante ni waxtu wi rek ñi ngi ko ci daal di juñ baaraamu tuuma moom ëttu yéenekaay bi di moom moo daal di addu nu ñu mel keneen ko am lu ko doy sëkk ci beneen ëttu yéenekaay di Walf Quotidien moom dafa daal di xëyee rek niki tey rek nataal maître Abdoulaye Wade ak jamono ji rek lenn ci ay militam yoo xamante ni si dañoo daal di dëkkee di démissionné moom ëttu yéenekaay bi dafa daal di addu rek ne eh, PDS jamono ji rek ñoom itamit ci ay jafe jafe-jafe la di nekk lan ko daal di gis rek këcca daal di mujj démissionné eh, di Cheikh Dieng moom dafa daal jàpp rek ni moom du ni ànd ci benn baara yëgoo eh, te dafa njort ni waxtu wi temb kii di maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ci tànk yooyu la ñu daal di aaw eh, bu ñu demee ba ci élection présidentielle 2024 te moom nee na du baara yëgool kenn ba tey rek keneen ku ci daal àddu xam-xamam jëm ci wàllum politique moom la mu daal di gis rek moom moo di PDS kay ku da ngay nekk simple militant toog di xoole lu ko mooy rek boo ci daal di àddu àddoo lenn rek dañu naan la noppi di doxalee te la mu daal di jàpp rek moom moo di maître Abdoulaye Wade jamono ji kenn yitteelu ko kudd rek avenir Karim Meïssa Wade ni saa yu ñibbisi woon ci Sénégal ban amnistie ko moom dafa daal di jàpp rek ne daf koy daal di yàkkal boobu la parti moom ëtt yéenekaay bii di ko Quotidien moom moo daal di àddoo ñu ñu mel ñu des ba tey tamit ci coowul PDS ak militant yi nga xamante ni jamono ji ñoo ngi ronqeeku ndànk-ndànk ci beneen ëtt yéenekaay di source a moom dafa daal di dikkat ak la daal di waral rek ba kii nga xamante si euh, moom moo di Cheikh Dieng daal di génn ca parti boobu moom ëttu yéenekaay bi dafa daal di jàpp rek indiwaat na ci ay leeral ndax la mu ca gis jamono ji moom moo di PDS ni ñuy daal di doxalee waxtu wi dafa daal di tey xelam moo tax sax mu daal di génn ca teel teel euh, te moom nee na fas yéene te bokk ci benn baara yëgoo jëm ci ay élection présidentielle 2024 te diggante président Macky Sall ak Maître Abdoulaye Wade baara yëgoo la mbir moomu di nuru moom loolee tax sax mu daal di génn euh, yéenekaay bi di Source A moom moo daal di àddu ni ñu mel ñu ànd ak yéen ci las quotidien moom it dafa daal di àddu rek eh, ci PDS ak Karim Meïssa Wade mi nga xamante ne si rek waxtu wi dafa daal di taga témbe eh, foofu ca Qatar donte ne élection présidentielle mi ngi daal di dëgmal waaye ki gisut lu ni mel rek di Bassirou Ndiaye eh, bokk rek ci li nga xamante ne si moom moo di ci njiiti PDS moom daal di nay àddu la mu daal di xam ne rek moom moo di waxtu wi ñi ngi daal di def seen kemt lay kattan ngir daal di jëli may sa Wade foofu ca Qatar mu dellusiwaat ci réewum Sénégal waaye rek ñu daal di koy samp mu nekk présidentielle 2024 moom ëttu yéenekaay bi di L'As Quotidien moo ni àddu ni ni mel waaye ëttu yéenekaay bi dafa daal di àddu tamit euh, jëmale ci rapport yi nga xamante ne si OFNAC dafa daal di am ñoo xamante ni si rek daf leen di daal di épinglé euh, jëm rek ci ay plainte yu bari yoo xamante ni dañ ko teg ci table bi moo di Orange toll ci rek ci ñett téeméer ak juróom-ñaar fukki plainte yoo xamante ne si rek askanu Sénégal moom moo leen ko daal di def waaye tamit firi moom i tamit am ca lu toll ci juróom benn fukk ak moom itamit daal dinay am juróom-ñetti plainte waaye wéef moom it kenn demul mu des ndax am na lu toll ci ñeenti plainte yoo xamante ne si rek ak njuuñ njaaj dañoo daal di gis ni dafa daal di am rek ci doxalin bi ñuy doxalee ak askan bi moom ëttu yéenekaay bi di laas moom moo di addu ñu ñu mel ñu tàbbi ak yéen ci direct news moom dafa daal di xëyee rek ci Mamadou Lamine Massaly mi taxaw temm ngir nekk Baye Fallou président Macky Sall ginnaaw kaddu yi nga xamante ne si rek daf ko daal di yëkkati jëmale ko ci Lamine jàll ndax dafa daal di gis rek ni Lamine Diallo jamono ji Euh, li muy yàq président Macky Sall ak nguur gu Sénégal loolee tegu ko fenn ay sos képp rek moom moo daal di waral mu daal di doxalee nu ñu mel ba tax na rek moom Mamadou Lamine Massaly ni président Macky Sall amul temps benn yoon euh, di tontu ci ay wax yoo xamante ne si waxi picc la ndax jamono ji li ko day sëkk rek moom moo di fexee ndaka la Sénégal gën a jëmee ca kanam ba tey ay kàddoom moom Mamadou Lamine Massaly ci ëttu yéenekaay bi di Direct News euh, daal dinay xamle rek ni waxtu wi tembe rek kenn ku ci nekk daal dinay tegal say bopp say gët ci ni nga xamante xamante ne si président Macky Sall daal dina koy doxalee ci réewum Sénégal ak avancement bi ci daal di am waaye nag bu fekkente ni di gis asamaan lànk tembe rek ni gisul asamaan loolee moom Mamadou Lamine Massaly nee da cee di mënul dara ba tey ñu tàbbi ak yéen ci keneen ki nga xamante ni dafa daal di nekk ci ay xiini miina maanaam ci guddi gu bët di njiitu réew mi président Macky Sall la ko daal di waral rek moom moo di waxi troisième mandat ak dund gu seer ba egg ci lool ci ankanamu askan wi moom ci loolee rek eh, président Macky Sall ci la di nekk waxtu wi ak ndaka la daal di fexee ba gën a bennole euh, jëm rek ci Benno Bokk Yaakaar maanaam xëccoo ak ñiiroo yi am ci seen biir loolee ñu daal di koy teg ci suuf moom ëttu yéenekaay bi moom moo daal di addu ni ñu mel waaye keneen tamit ci ku daal di addu di réew mi quotidien di Idrissa Seck ndaamal Kajoor moom ëttu yéenekaay bi dafa daal di gis rek ne euh, donte ne ñu bari sax ñi ngi daal di taxaw teem mu ne war naa mën a nekk premier ministre moom ëttu yéenekaay bi dafa daal di gis rek ne idi moom lu ca mën a am ba des rek moom tekkeetul dara ci géew politique bi ndax la mu amoon daf ko daal ñàkk bu baax a baax donte na ñu tabb ko premier ministre loolee dina daal di gën a ratax ci diggante doxalinu pouvoir ak di ñëwee seen diggante di a bii di réew mi quotidien moom moo daal di àddu ni ni mel waaye tamit daal dinay àddu euh, ci keneen ki nga xamante ne si jàpp na ji war nañu daal di jàpp rek ni avenir am ci wàllum politique dafa daal di euh, cate lool maanaam ci lang la daal di toll di rek Khalifa Sall moom ëttu yéenekaay bi di xam xamle rek ne eh, benn at kay moom moo ko daal di desee rek muy élection présidentielle 2024 loolee moom moo di ak sànni tàccoom moo xam da cay am lu baax baa rek mu daal di cay dellu ginnaaw waaye moom ëttu yéenekaay bi di enquête quotidien ca moom rek la daal di eh, di def enquête donte ni sax ginnaaw bi ñu ko fi nëbbee ab diir ci police loolee eh, dafa daal di rek fayoon lu bari ci géew politique am waaye élection présidentielle wala législative yi ñu passé yokkaat na ci ay points lu bari bari moom ëttu yéenekaay bi di enquête quotidien moom moo daal di àddu ni ni mel ñu daal di koy ndar keppe ak lu doy waar li nga xamante ne si eh, dañu ko daal di nammeeku rek foofu ci hôpital ba nekk rek eh, fële nga xamante ne si rek moom moo di ci Sédhiou moom ëttu yéenekaay bi dafa daal di xëywaat eh, ginnaaw faatuk astu soxna mi ñàkkoon bakkanam ci accouchement bu doy waar keneen dañu ko daal di nemmeeku koo xamante ne si rek dafa daal di ñàkk bakkanam foofu rek moom ëttu yéenekaay bi dafa daal di dikkaat rek ci ay mbiram ginnaaw hémorragie gi nga xamante ne si am na ko di Mami Dora Diallo moom ëttu yéenekaay bi dafa daal di gis rek ni dafa daal di ñàkk bakkanam mook doomam ji mu yore woon rek ci jamono ji mi amee doom ci ak càggante waaye ci hémorragie gu doy waar la ko daal di waral rek ëttu yéenekaay bi ne deesu ko mën a wax ci ab télé ndax mbir ma na mu daal di doore donte ne sax dafa daal di metti lool euh, donte ne sax doon nañ ko nëpp nëppal waaye ginnaaw bi rek la ñu ko daal di déyee ki nga xamante ni moom moo di commissaire di Baye Thiam mu daal di egg ca béréb ba daal di jàpp ki nga xamante ne si rek moo di Léone Mbaye Fall moom mi nekkoon rek gynécologue bi waaye tamit bàyyiwu fa nekkoon rek anesthésie ak ki nga xamante ne si moom moo di euh, Bakary Diakhaté mi daal di nekkoon rek lii di infirmière bi moom ëttu yéenekaay bi di libération euh, di xam ne rek ne waxtu wi tembe ñoom ñëpp rek ñi ngi ci garde à vue euh, ginnaaw bi nga xamante ne si rek dañoo daal di sàggane ba Mamy Dora Diallo moomu ñàkk bakkanam mu mel ni loolu rek la ñu nemmeeku tey ci li nga xamante ni ëttu yi dañ ko daal di xëyee ni ki tey rek ci seeni xetu njëkk njëkk yemoo ko alxamis benn fan ci weeru février atum 2022 di leen sant bu baa baax di leen gërëm tekki tamit di leen ñaan ngeen taxeerlu tuuti ci kanam di ngeen daal di ànd rek ak ki nga xamante ni si moom moo di soxna bint eh, ci yor yoru safar di leen ñaanal jàmm tekki tamit di leen ñaanal kenn dalu jàmm مني لمن له الوجود والخدم حمد وشكر وتقبل الخدم